jullit si ñuy seetaan ñu topp ci eh, GMT TV muy télévision bi bàyyi fii ci jumaa ju mag ji ci Touba ñu ngi leen nuyu ñeen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci njëlbéenug émission yi ñuy tàmbali mu tudd melokaanu jullit melokaan yi jullit bi war a mel euh, te ñu di ko sukkandikoo ci yoon wi ñuy jaar ba amee ko ba am ko ñu koy tuddee tasawuf sukkandikoo ko itam njàngalem sëriñ bi ni daa jàngale mag ñi ak ni mu daan daan yare muy ay émission yu ñu ne ñoom ci kanam di jàppalante jullit yi leen laabire ci nu ñuy defare seeni jikko ak nu ñuy dëppoog euh, melokaan yi sunu borom gërëm kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen balwaq te di leen ko baal di ñaan sunu borom bal nu jégal xam nañu ne jikko jikko ju rafet ak melokaan wu ñu gërëm mooy meññetum diine mooy jeexit ji nga xam ne moom la diine di bàyyi ci nit nga xam ne nit ki lu mën mel ci farlu ci jaamu yàlla su fekkee jeexit yi ju rafet ak melo ñu gërëm nekkul ci moom dañuy jàpp ne la muy def dese naa am njariñ des naa yegg fa mu war a yegg moo tax jullit bu nekk war a am itte ci defar jikkoom laabal ab xolam rafetal ab yaram ak tegginam ak jëflanteem ba mu dëppook ni ko yàlla bëggee loolu nag moo tax mbokk yi taxawu jataay bii di amal waxtaan yi ñuy bëgg a amal tey nag waxtaan wii tey nekk waxtaanu ubbi jëm ci xamle li nga xam ne ci la bi sukkandiku woon ci am njàngale ma ko yaram bi doon jàngal mag ñi ak dañ ca yar te su muy loo xam ne cosaan la ma nga bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam jaar ci gaa yu baax yëpp egg si ci moom euh, loola mooy tasawuf kon tasawuf ci boppam mooy lan ak lu ko tax a jóg lu muy jariñ Eh, ak solo ab atteem ci diine ak eh, solo si mu am ci la ñu bëgg a tënk waxtaan wi rek ci ay kàddu yu gàtt tasawuf baatu arab la tasawuf baatu arab boo xam ne borom xam borom xam-xam ci ci ban baatu arab la cosaanoo wuute yu baree bari sëriñ bi tënk na ko ci wenn bayit ci ci Masaalikul Jinaan ne fa suufatun wa saffu wa qiila suufun qiila saffun faqfu am ñi bind fa qiila suffatun suffatun am ñu def suufatun ñaar yëpp ñaar riwaaya la yu bu ci am na kon bu wute nañ ci baat bi fan la jóge am na ñu wax ne mi ngi jóge ci baatu suufatu bi firi e, kawaru kawar gu nooy kawar gu nooy gi nag ci ak ndong fa la jóge ngir ab jullit di bi di jëfe tasawuf day nekk ku nooy ku jàpp ni ku baax ku neex a jëflanteel am ñu ne mi ngi bàyyi ko ci suffa suffa te mooy ahlu suufa maanaam mooy mbooloom ma mbooloom saxaaba ya nga xam ne eh, dañu daan taqoo di nekk ca mbaar mbaar ma ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi te mooy ña doon ña gàddayoon rek di doore ñëw madinatu munawwara amaguñu fu ñu dëkk fa lañ daan nekk di tàqoo di jaamu yàlla euh, du ñu woon mbooloo mu sax waaye mbooloo mu doon ñëw ak ñëwaat lay doon ku ci ku fa nekk rek waa am foo mën a nekk daal di dem wuti dem dem fa nga nekkoon waaye nag mbooloo lañu doon xam kon dañuy tàqoo jàkka ja rek di jaamu yàlla euh, nekk ñu gàddaayoon ngir jëm yàlla am ñu ne baat bi mi ngi joge ci euh, sappe safu bi firi sappe ngir ñu koy ñi mbooloo mi mi ko ci nekk dañu neen dañoo ràññi ko ci taqoo jullit mbooloo am ñu wax ne mi ngi joge ci baatu suuf bi firi kawar kawaru xar wala kawaru bàyyi ma yi ñuy defaree ay yére ndax ñi gën a ko ci ñekko ko daa ña ko ña dañu daan sol yére yu ñagas ngir toroxlu ak dëddu àdduna am ñu ne mi ngi jóge ci ak sell ndax mbooloo moomu ñu sell la doon waqiila xayru zi aqwaluhum fiihi ala alfin tazid tadaaduna huna laha laysa yufid sëriñ bi nee na baatu taso fan la jógee li ci borom xam wax ëpp na junniy wax yoo xam nakk fa di ko lim amaluñu njariñ kon boo xamuñu fi baat bi jógee dëgg-dëgg daal dëppoowuñ ci borom dëppoowuñ ci fan la baat bi jógee waaye nag euh, teewul ñu jël ñu jël ko di ko jéem a xamle di ko xamle kenn ku nekk wax wax ci nam ko déggee wante bu ñu dajalee wax yiñ ci wax ci xamle tasawuf mooy lan mën nañ koo tënk ci ñetti wax wax ji njëkk ji mooy ak xamle leen goo xam ne moom da koo jàppe muy ab xam-xam xam-xam boo xam ne ci la nit ki ja mën a sukkandikoo ba xam yoon wi muy jaar ba mën a sellal bakkanam mën a laabal ab xolam ba mën a tàqoolikoo jikko yu ñaaw yëpp ak melokaan yu ñaaw yi mën a tàqoo jikko yu rafet yëpp ak melokaan yi ñuy gërëm ba noppi itam sel a e, sell xam boroomam jege ko yàgg ca am ngërëmam yoon wi nit ki jaar ba àgg foofu daal e, xam-xam xam-xam bi nit kiy jaar xam-xam bi nit kiy jàng ba mën a xam yoon wi koy yóbbu foofu jëmmi xam-xam boobu am na ñoo xam ne loolu la ñuy tuddee tasawuf kon ñooñu xam-xam lañ koy lañ koy firee xam-xam xam-xam bi lay yoon wi ngay jaar ba mën a rafetal ni nga xamee ne tawxiid mooy xam-xam bi jàngal ni ki nu muy wérale pas-pasam fiq mooy xam-xam bi jàngal ni ki atte yi aju ci jëf yi cër doomu adama yi jëf naka noonu kon tasaw mooy ñetteelu xam-xam bi jàngal ni nu muy def ba rafetal ndax xam ne ne diine ñetti xaaj la gëm yàlla ak jëfe ndigal ak bàyyi cër yi tere ci say cër ak nak rafetal mooy liimaan ak lislaam ak lihsaan loolu sëriñ bi wax xam-xam le gu mel noonu dañ ko dégg ci waxam ji muy wax ne wantabihu fi anna diinallaahi aqsaamuhu jiimun bila shibaahi awaluha al imaanu wal islaamu baadahum al ihsaan laa tanaamu fa awalun yasixu bi tawxiidi wa thaani bi tafaquhi l xamiidi wa sixatu thalisi bi tasawufi fa jamu waajibun bila tawaqufi kon foofu ay xam-xam la lim boole ci tasawuf kon foofu jàppee na ko muy ab xam-xam ni ko ànd ak borom xam-xam yu bari ci yu koy xamle ne moom ab xam-xam la kon buy xamal nit yoon muy jaar ba mën a rafetal. am na yeneen xamle yoo xam bu ñu ko tënkee day xamle ne aw yoon la ay jëf la aw doxin la aw doxin la wu ni kii jëf dox jànkonte ceeg bakkanam ak bànneexam ak seytaane ak àdduna euh, farlu ak farlu gu muy amee ba mën a àgg ci e, fa nga xam ne mooy dëgg-dëggi rafetal kon yoon kon ñooñu dañu ko jàppee ak ak ak e, sóobu sulook kon jàpp nga xam ne yoo xam ne sulook lay jàppee tasawuf ne moom la bu ko defee ci xamle googu sëriñ bi xam le na ko tasawuf euh, indi na ci ay wax yoo xam ne loolu lay tegtale bokk na ci fi muy waxee ne xaddul iradati bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi al aada summa rujuuhu ila al mu'tadi qabla wusulihi kal irtidaadi dëgg-dëggi nam mu jëmmi yàlla te mooy tasawuf rek euh, mooy rek nit ki bàyyi lépp loo xam ne bakkanam miinoon na ko tàmm ko mu bàyyi loola ba dëppook ngërëmul yàlla ak ndigal yàlla ak na melam ci jaam ñi euh, kon bàyyi googu nga xam ne kii da koy bàyyi la miinoon la bakkanam miinoon lépp da koy bàyyi sóobu yoon wu yees mel kuy door a juddu euh, juddug maanaa ba nam lañ bëgg a def ci moom ci ay melo sax ci moom mu doog a delluwaat nag ca yam miinoon ya ca baax loolu nee na mooy tasawuf nga xam ne kon ku ku delluwaat ku tàmbali loolu ba yàgg nag nga dëpp delluwaat ca na nga meloon lu jiitu ngay àgg fa nga war a àgg nee na kooku mu ngi mel ne ku doonoon jullit ba yàgg mu murtad waliyaasu billaahi taala kon xam le googu xam le sóobu la day mel ne kon ak sóobu la am na geneen xam le goo xam ne moom moom day day wane tasawuf bu ko nit ki def bu ko nit ki xamee jëfe ko la cay juddoo lay juddoo ci ci ci jëfe ga loola mooy na nit kay mel daal loola kon ñu jàpp ne moom mooy mooy mooy tasawuf te mooy sell gi nit ki sell ba doon jaamub yàlla boo xam ne yàlla bokkut ak sequt ak moom kenn léppam di yàlla bu wéetal ko wéetal gu mat sëkk jox ko léppam xolam ak jëmmam Euh, te mooy melokaan wi nga xam ne ku sóobu ci yoonu tasaw ba yegg noonu ngay mel am na ñoo xam noonu nañu xam ne loolu mooy tasawuf mooy sëriñ bi wax ne xaddu tasawufi ladal xazali tajriduna qulubana lil wali ma tiqaari kulli ma siwaahu qalban wa qaalaban hadana allahu mu ne tasawuf mooy nga sellal sab xol def ci yàlla rek nga xam ne yàlla du bokk ak kenn ci sab xol yàlla rek ay fees dal sab xol ak lépp lu lay jegeel yàlla ak ku lay jegeel yàlla bu ko lépp lu yàlla nga xeeb ko ci sa xol xeeb ko ci sa jëmm doo ko bëgg doo ko xemmem tey doo jëf ngir euh, am ko yàlla rek mooy doon sa bëgg-bëgg lu lay may yàlla rek itam ci ngay jëme sa say say yëngatu kon melokaan woowu mooy wi nga xam ne ku am ku sóobu tas nga yàgg kon loolu mooy euh, xam ne ñetteel bi loolu nag buñ buñ ko boolee dañuy jàpp nag ne ñun bu ñu sukkandikoo ci li sëriñ bi wax dañuy jàpp ne ñett yëpp ngay boole mu tudd tasawuf kon xam-xam la bu lay xamal yoon wi ngay jaar ba sell boo ko xamee nga jóg jaar ci yoon woowa boo ci jaaree daal di mel melokaan yi nga xam ne moom lañ bëgg nga mel ko loolu tënk ci wax ji mu wax ne wal xaasiru suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil fa saar saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari munqatian li rabbihi min al bashar musawiyan dinaara aynin bil madar kal ardi yurma fawqahu fawqa fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih yatawha alkarim wallaimu walbarru walasi wa tastadimu wa ka sahabi wa ka qatri lmaai fi zilli wa saqi bila sisnai faman yakun kazaka fahuwa suufi aw la fasu daawa al maaruf kon ci xamle gi tuddee na ko xam-xam ndax bu ne aalimun kon foofu dugal na ilmu xam-xam bu ne amila bi ilmihi xaqiqatan kon loolu jëf la mooy suluk ba fasaar saafiyan ba ba la ci béy mooy wane melokaan yi nga xam ne moom lay kon tasawuf daal mooy xam-xam bi ngay xam mooy xam yoon wi lay yeggale ci sell ci rafetal ak sellal euh, nga nga nga jëf ko nga jëf yoon ngay sóobu ca yoon woo jaar ca ba yàgg nag ca yàggukaay ba mel melukaay yi nga xam ne sàkku loolu lépp ñu ko boolee kon mooy eh, mooy tasawuf te ki mel noonu mooy suuf yi bu nag li muy jariñ mooy kon mooy tax eh, day tax nit ki eh, sell day tax mu am jikko ju rafet day tax mu wéetal yàlla wéetal yàlla ga nga xam ne mooy ga gën a kawe mu tawxiidul aarifin da koy jox nit ki eh, da koy tax xam sunu borom tax koo yàgg ci moom tax koo eh, jege sunu borom tax ko am ngërëmam kon loolu la loolu lay fàggul doomu loolu nag buñ ko xamee dañu xamee kon lu ama am solo la ku ne xam na ne melokaan yi ku nekk ci moom eh, jeexit ja muy am ci soppi aw xeet ak yëkkati Euh, doomu aadama nit ki ki mel noonu ak defar réew jëmale kanam réew mu mbokk loolu ku ne xam na ne nit ñi mel noonu euh, dañuy wëlbati seen taarixu jamono di defar di jëmale kanam seenu réew seenum réew di yëkkat seenu xeet sëriñ bu mag bi jëfe yoon woowu ak ñam ko àndaloon gis nañ ni ñu mel ak jeexit yi ñu bàyyi kon loolu wane ne solo si nga xam ne tasawuf am na ko ak li nga xam moom su ko defee atte bi kon dañuy jàpp ne ni ko sëriñ bi waxe nee na tasawuf day mooy jàng xam-xam boobu nga xam nga jàng ci la mënta ñàkk la ci mënta ñàkk nit ki xam ko ca muy euh, ba noppi jëfe ko loolu moom faratay jëmm la ju nekk ni nga xamee ne wéetal yàlla farata la jëfe ndigal yi di farata bàyyi yi ñu tere te muy xaraam farata la naka noonu tam sellal sab xol rafetal say jikko euh, laabal ko loolu itam day nekk farata ndax nit alxuraan day wax ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man atallah bi qalbin salim yawmal qiyaam képp ku fa dem te yoroo xol bu laab bu sell bu mucc ayib mucc jàngale xol yëpp na ku melul noona bu yawmal qiyaamee doo fa jariñu te dangay ngay bokk ci waa safaan ba yàlla na ci yàlla musal yonent bi sallallahu nit am na yaram nit am na jëmmi nit am na benn cër bu ca nekk boo xam bu baaxee lépp léppam baax su bonee am du baax loolu mooy xol kon loolu da wane ne kon sellal xol lu mënta ñàkkale ci ab jullit mu def ko bëggee mucc ëllëg euh, loolu nag kon ndegam muccuk ëllëg muccuk nit ki ëllëg ci xam tasawuf la ca mënta nga xam ko la ca mënta ñàkk ci jëfe nga jëfe ko ba sa xol mën a sell sa jikko mën rafet sa nga am mën a am yar ak tegin mën a def sa yitte ci yàlla loola kon lu mënta ñàkk la ci jullit farata la moo tax kon mu wax ne Xasaali yi nee na euh, tasawuf jàng ko ak jëfe ko farata la ama tasawuf la dal Xasaali euh, ama tasawuf fa fardu ayni la dal Xasaali yi may ni loolu itam ndax ki deful loolu day faatuwaale bakkaar yu mag te du xam ne bakkaar mi ngi woon ci moom loolu sëriñ bi wax ci masalik di ko delloo ci eh, cheikh Mouhamadul Khalifa radiallahu anhu mu ne wa man yaduumu za inkaari bihi mada dahri bilas dijaari fa innahu yamuutu bil israari alkabairi bi adil baari bila musaahabati arfanin biha nassa bi zaka cheikhuna fantabiha fanzurhu fansur axi fi junnatil muridi li xawsina al xalifati rachidi alayhi ridwanu ilahi al baari wa kulli muslimin min al axyaari nee na képp koo weddi tasawuf wan ko ginnaaw nanguwoo jàng xam-xam ba nanguwoo jëfe la muy digle te sax ca ba faatu nee na kookee dana faatuwaale bàkkaar yu mag yu nekkoon ci xolam yu dul xam rëy ki ñaan njissal yëg sa bopp bëgg àdduna ak yu bare bari yi nga xam day alak nit nit kooku day day danañ na ci xolum nit ki ba nit ki fàttal du ko xam te su boobaa kon day alku ci maanduk suñu boroom te du xam du xam ne loolu mi ngi woon ci moom bu faatu ba noppi la ko doog a xam kon loo ñàkk gee xam ñàkk gee jafe day yóbbee ni ki ci alkande te aar sa bopp ci alkande ak sawara day farata yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum ahlikum naaran waquduha annaasu wal hijaara yàlla digal nañ ñëpp digal loo xam farata la ñu aar nit ki mu wattandiku sawara ak lépp lu koy lu ko cay yóbbu wattandiku loo ko itam ak njabootam te dañu wax ne lépp loo xam ne eh, mënoo def farata te defoo ko loolu day doon farata maa laa yatimul waajibu illa bi fa waajib kon dagam nit ki fexe ba mucc góorgóorlu ci lu koy musal farata la ci moom te xam tasawuf ak jëfe ko moo ko moo ko ci dimbale kon xam ta safa jëfe ko di daal nekk farata ci ci ci anam kon mën nañu wax ne arte bi daal mooy waris na koy jàng te di ko jëfe kon bu ñu bëggee yarub yar bi ñuy def ndaw ñi ndawi jullit yi bu ñu bëggee yar bi ñu leen def nekk yar bu antu boo xam ne day mat sëkk dañu jàng dañ leen jàngal tasawuf yar leen ci ma xeet wi itam te mooy mbooloom réew mi mbooloom réew yi jullit yi suñu bëggee ñu nekk mbooloo mel na yàlla bëgg ci pas-pas ak jikko ju rafet ak maandu ak njub ak jëm kanam ak am kattan ba mën a taxawee taxaw yi leen war ci àdduna tasawuf duñ ko ganaawal danañ ko boole ci seen programme yi njàng di ca yaraale xeet wi bokk ci yi nga xam ne lépp lu ñuy nas dañ ko cay boole waale kon loolu day wane solo si nga xam am na ko kon loolu rek xëy na mooy ubbite bi ci jataay yi di incha allahu taala da ngeen ànd ak eh, suñu mbokk sëriñ Ahmadou Mbacke moom Cheikh Mourtada Eh, moom sëñ Cheikh Fati sëñ Cheikh Fati Fall moom maam Thierno Ibrahim radiyallahu anhu eh, mu ànd ceeg yéen ngeen ñu ci kon ñu ngi tënk ci waxtaan bi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal tudxil almusliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bilhaadi alwafi